محمد رسول الله والذين معه الشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيمعهم بوجوههم masalahum fi tawreet wa masalahum fi linjiil te gartan axraja shaqahu fa aazarahu fastaxlaza wastawa ala suuqihi yuhdibu zuraa'a liyuhbita bihim al-kuffaara وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما اللهم صل على والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته noo ngi nuyu jotaay bi yëpp ci nuyu bu sell bu yeyoo ak jotaay bi yeeyoo ak nit ñi fi nekk seeni yitte ak seenu fonk sëriñ ak seenu bëgg sëriñ ñoo ngi nuyoo nuyoo bu toll noonu di jëkk ci nuyoo bi ki nga xam ne ginnaaw yàlla moom moo nu fi dajale te ñuy nuyu ci jëmmam sëriñ Cheikh Jëmb Fall di ko boole moom mbokkam yi fi teew yëpp muy sëriñ Cheikh Khadim Fall ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu mbokkam yi fi teew yëpp nga xam ne gis nañ leen fii ñu teew fi ngir kóllëre ak mbokk ak pas-pas di nuyu sëriñ Abdou Sakour Fall moom sëriñ Assane Fall moom Cheikh Ibra Fall di sant bu baax a baax ci teew bi ñu teew fi ñun ñëpp te lenn tax loolu te bokk fi teew muy li nu bokk ñun ñëpp te Serigne Cheikh Khadim boo gisee mu woon dafa am lu ci jub dafa am lu ci bëgg am lu ci yéene am lu mu séntu ci bis loolu nag ñoo ngi koy ñaanal suñu borom defal ko ko te defar ko ko ci nit ñi defal ko ko ci boppam lu koy sant bu baax a baax ngir la ma waxoon Serigne Moustapha Abdou Chakour rek dafa am ñoo xam ne seen jikko ak seenu melo ak seenu doxin ak seen yar ak seen teggin ak seen yiw ak seen bëgg lu baax moo tax boobu ñu wootee ku mën a ñëw ñëw ku mënul ñëw ñëw te Sëriñ Cheikh Khadim exemple la ci yooyu ma jox kilifa la goo xam ne noo ngi ñaan yàlla yàggal ko fi moom bokkam yi yëpp kenn ku ne xam na ne misaal la kenn ku ne xam na ne ku ko xool xam ne mu ngi wane aw yoon te man ca tege te ku ko jege mu teg la ci ndax bàyyi ma boo koy sàmm ci ginnaaw ngay ne yaru yar waaye nit boo koy sàmm ci kanam ngay ne ndax daa amul xel nit dañ ko royloo rek kon melokaan woo xamante ni bii ku ko gis gërëm ko te yal na la yàlla lafal cat moom nga yor Fall Ndiaga noonu la ciy sant bu baax a baax nag ndax dongo yi feeg ñu ngi gis ñu tege ci yoon te aw ca yoon wa te wàccuñu ko macha allah foo leen fekk ña ngay sant ca loola ndax ñun amuñu lu dul waa sëriñ kon sa melo bii ak sa dox yi Fall Ndiaga ñoo ngi ñaan yàlla mu yàggal te may la wér te may nu ko te li ñu yaakaar ci yow yëpp suñu borom wan na ko mu mel ni bésam bii tey jii mu woote man nii sama digganteeg sëñ Cheikh Khadim bari na ko yor sikkim bii di dox te ba may kóllëranteeg moom booba defe naa ne gone bu tuuti ka te loolu sëñ bi mu ngi ma dégg cant gi ma jëkk def ci Parcelles Assainies courant sax aw ma may sant sëñ Cheikh Fall Baye Góor ci lëndëm gi la sëñ Cheikh Khadim mii fanaan ba bërset te loolu année quatre-vingt nangam la kon nit a ngi koo xam ne ku am kóllëre la ku bëgg lu baax ku lu baax kuy wut aw yoon di laaj aw yoon de boo ko gisee war a xam ne mi ngi wane aw yoon kon noo ngi ñaan ñëpp ñaanal di ñaan njabootu Cheikh rek gépp ci barke Serigne Cheikh Jëmb Fall saa borom defal leen loolu ñoom ñëpp ñu bokk di ñaan Serigne Mountakha ibnu Cheikh Mouhamadul Bachir sunu yaakaar ji tey ak ëllëg yàlla yokk ko dëgëral ko te musal ko ci bépp pàkk ba mu jëf ba matal te lim bëgg yàlla na ko liñ bëgg ci moom yàlla nañ ko am ndax loolu ñaaniinu mag la kilifa yi daan nañ wax loolu kilifa yi liñ bëgg ci yow yàlla nañ ko am li nga bëgg ci ñun yàlla nañ ko am mu mel ni bésam bii mu wooteel Cheikh Ibra li ci war a am yëpp am na ci jàng alquran jàng xasida tudd tur yàlla waxtaani Cheikh Ibrahima te loolu yëpp lu ci nekk dafa am lu muy jur ci nit waaye nag Cheikh war nañ di ko waxtaane de te du doy ndax jamono mi ñëw boo xam ne dox nañ ba agsi ci eh, nit ñi ay philosophe lañu koo gis day philosophie ci xelam xel yi lañu yeewi bàyyi ko muy wundiilu di dugg fu ne di dem fu ne di xalaat lu ne di rabat lu ne koo gis mu nekk ni xelam la bàyyi mu jëm fu ne di dugg fu ne di taxaw fu ne loolu boo setloo sax li ëpp ci nit nit ñi seen taalibe bi lu ko wàññi loolu te Cheikh Ibrahima jàngaloon nañ ne philosophie amul solo li am solo mooy le concret déggoo ñu ne le concret défie la philosophie lii nit ñi xalaat ci àdduna yëpp xalaatu xel la rek ak nag Cheikh Ibrahima rek moo andi lu concret loo xamante ni lii amul xeet bu ci mënta wéy amul jëmm bu ci mënta wéy te xeet bu ko topp àgg fa nga jëm jëm du ko topp àgg fa nga jëm ñu bañ a abstrait doon ñu concret te Cheikh Ibrahima Fall li mu andi kii xare bi nee leen ko mu wàññi daal ñu xam ne xel lu doy waar la te danañ ci waxtaan ci ki nga xam ne moo fi Serigne Touba tey discours yi ñu jot a wax xalaat yi ñu jot a wax yéen yi ñu yéen ci Serigne Touba yéen ci àdduna ndax fi mu nekk ni jàggante gi ak seytaane Serigne Mountakha nee na ñaar yooyu rek ñu wër sàggan ak seytaane ñu war a góorgóorlu ci ñàkk sàggan sàggan te baaxul nit dina dem ba wacc boppam damaa bëgg agsi ci li tax Cheikh Ibrahima jàngale ak nit nag boo koy wax waxi nit nga koy wax mu dégg ko dégg lu nit ah seen Modou Xabal Mbàkke moom Cheikh Mamadou Fadal moom Serigne Touba moom soxna Adama Fall moom jotaay bi jotaay bi borom a ngi soog a ñëw kii moom moom moom jotaay bi moom ñi ne moom lañ ciy def lépp ci wet yëpp nag amul wet bu ko jotaay bi génne te wax dëgg yàlla ñoo ngi koy sant bu baax a baax biñ ko siinee de suñu xel dal أولئك مسابه الحدى تنجلى عنهم كل فتنة زلمى yonent bi neewoon na sallallahu alayhi wa sallam Touba li saabi xiina moo tax ànd ak sëñ Touba mission bu tiis la yonent bi waxoon na addis yu bare bare bare yu tàmbalee Touba jàngkat yi ci seen gàtt xel jàpp ne Touba gi jëm ëllëg lay wax ñëpp di ko séntu ëllëg ndekete Touba dana am fii waj al ilahi maskani Touba abad mislasmiha bi jaahi xeyra man abad ba ñu déggee lazina amanu wa amilu salihat Touba lahum wa xusnul maab ñu dégg ko lu yàgg tax nga xam ne Serigne Touba mooy alquran dégg nañ lu yàgg loolu waaye nag ëllëg lañ ko doon séentu ñi nga xam ne gëm nañu te muy dëgg yàlla nangu leen seen gëm noonu nga koy firee ñuy jëf jëfu yiw ba yàlla nangu jëf ci tuubaa jëfam ñooñu ñooy moom tuubaa nit ñi nag daan ne tuubaa mu ngi firi texe te tuubaa garab la bu ne ci aljanna moom rek moo bokk ci yi nga xam ne suñu borom moo ko jëmbatal boppam ndax Abdullah ibnu Salaam yahud ba ba mu laajee yonent bi sallallahu ne ko wax ma yi yàlla defal boppam te sant ko malayka sant ko jinne waxul kun fa yëgoon ab yahudu ko laaj yonent bi asmaa wiil la tuddoon du mu tuubee la tudd Abdullah ibnu Salaam yonent bi ne ko wa kataba allahu li muusa fi lalwaax bi yadihi yàlla mbindum loxoom am na ci koo suuf xam naa ne nag boo ko déggee dégg nu dof danga naan ndax yàlla am na loxo waaye misaal la yadullaahi dégg nga ko ci alxuraan yadullaahi fawqa aydihi kon misaal la mbiram la ñuy wax noonu mu ne wa kataba li muusa fi lalwaax bi yadihi ci yàlla Moussa yàlla ba mu demee ci tuuru Sina gisee ak suñu borom yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam mbind moomu àndiwaale mbindum yàlla la boobu dañ doon laaj rasulullah mbirum yàlla ci kaw suuf damay ñëw rek ci teewaayu sëñ Modou Fabane bi teewaay bi ni ñu ko war a jàppe ak ni ñu ko war a dékki mu ne ko jannaatu adnin àjjana ji ñuy wax jannaatu àddina sunu borom a defar achète architecture ba moo ko tabax moo ko liggéeyal boppam waxul kun sant ko malay yàllaa ko liggéeyal boppam mu ne ko ak lan mu ne ko sajaratu tuuba garab dañuy wax tuuba garasaha llahu bi yadihi yàllaa ko sampal boppam di ko suuxal garab googu nag siyaabu ahli janna taxruju min akmaamiha waa àjjana yëpp lépp lu ñuy jëfandikoo ci garab boobu lay jóge moom la sëñ Tuubaa tudde Tuubaa waaye ba mu ko ko tuddee nag dana waj al ilaahi maskani Tuubaa abat mislas niha bi jaahi xayra man arab defal Tuubaa gi mun nañ ni turundoo ko doon misaalum turundoo ci kaw suuf ci daraja Rasulullaahi sallallaahu alayhi wa léegi nag Touba googu ñëw na ci alxuraan benn yoon moom laay wax ne ci njëlbeen bi Touba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci ne Touba li saabixiina ulaa'ika masaanul hudaa ñuy dëkki Touba mooy ñuy jiitu ñëpp ci yàlla sëñ Touba bind ko laxat sabaq falaa yaxfaa ala ahadin illa ala ahadin yasqaahu mawlaahu sëñ Touba nee na jiitu naa te jeex illa ba mu def koo xamante ni kii suñ borom nam mën a ak texe bi kooku xamagul ne maa ji te kon tuubaa li saabixiina ulaa'ika masaabiul hudaa nee na ñooñu ay lampi jub la tan jëlaa anhum kulla fitnatin zalma fitna ju nar a ñëw lëndëmal nit ñi alal leen ñoom ci seen bopp ñoom ñooy fexe ba fitna jooju du Serigne Touba dafa am ay ñu koy liggéeyal moo tax mu ne eh, askuruhu waxaadali abdaala kama kafaanil xarba wal jidaala loolu mooy tan jëlaa anhum kulla fitnatin zalna ñun lay daal xeet yi bu ñu dalul ab daal yi fi nekkal sëriñ bi moo tax te nekk ci kaw ci ci jamono sëriñ bi nekkal ko fi lu jëm si ci jaam yi ñu ñu yenn ko ba mu oyof li mënta ñàkk ñu bàyyi ko mu jaar ci jaam kon ñooñu bu ñu duggee ci jotaay ku mel ni Serigne Modou Xabaan nañu sant yàlla bu baax te ñaan yàlla loolee yàlla ñaanoon loolee suñu borom wax waxoon ci kàddu yonent bi yàlla na am ci suñu jotaay bi ci teewaay bi ci teew ci barke bokkam yëpp barke Alaaji Fallu bàyyam barke Serigne Assane bàyyam maamam Assane kon nag ñoo ngi sant bu baax a baax ci sëñ bi teewaay bi nga teew di la bu baax Mbàkke ndax ñaanu taalibe baax na ci sëriñ ñaanu sëriñ baax na ci taalibe kon ma doon wax ne ci njëlbéen ji rek nañu delloo si waat sunuy xel te bàyyi sunu xel yi ñu bàyyi muy dem te tënkuñu ko ci lu baax di philosophie di dem rek fi mu nekk nii koo gis bu jàngee tubaab wala mu jàng arab wala mu xaw a yeewu ci dara rek day daal di jàpp ne loola mooy sëriñam Cheikh Ibrahima la ñuy waxtaanee de dama leen wax lu leer nekkuma fi di wax ay Cheikh Ibrahima ba mu fanaani jee aras ak daal ne maa moom ni waxuma yooyu man loolu moom ku ko bëgg a dégg dégg nga ko ba tàyyi dañoo toll ci ku mel ni suñ Cheikh Xadim su wootee nañu bokk am pas-pasu xam ne dañ faa war a jëli lu ñu xamee ne li ñu yor moo gën a wóor loo gis àdduna kalaa waaye daf noo war a wóor ba noppi ñu aw ci tànk te loolu mooy Cheikh Ibra Cheikh Ibra ba diine sosoo ba léegi li andi islam fii mu àgg loolu mooy yoonu Baay Faal li tax lislaam agsi fi mu àgg mooy lazina amanu wa haajaru wa jaahidu fi sabilillahi bi amwaalihim wa anfusihim ahsanu darajatan indallahi ulaa'ika humul faa'izuun loolu moo ànd lislaam fii mu àgg waaye yàgg naa leen ko wax tagal sa mbaxani sol yëri yu rafet naan allah di prononcé andiwul lislaam fii mu àgg da si ne amanoo ngëm gu wér goo xam ne ko sikki sàkk te sëriñ bi wax na ci Seex Ibra ne li am njariñ ci nit te njariñ loolu du tàggoog moom àdduna ak alaaxira neen mu ngi ci Ibra Faal mooy ngëm ngëm a jëkk lépp waxaajaloo gàddaayee ci tegu dañu defe ne gàddaay mooy jóge dëkk dëkk Baay foo ko fekk jëmmi ni ku la xam nga luy loolu la tax mooy tey jii ab sëñ Cheikh Khadim mii fii mu toog nii bu ko sëñ xambaan mi woowoon ne ko kaay mu yónni la Tuubaa suba du yenn fi kon koo xamante ni ki foo ko fekk mu ngi waaj gàddaay lépp foo ko fekk mën naa tàggoog alalam tàggoog darajaam tàggoog njabootam ngir wut yàlla saxabu yu jëkk yi loolu lañu mën a woon ñëpp moo tax alxuraan ne lazina amanu ñu gëm ngëm ci li ñu jëkk a peese lépp te ku ne xam na ne Cheikh Ibrahima Fall Serigne Touba nee na luy borom mel na xel ñu ne ko boroom mel na xel mooy ku yor benn bët mu ne déedéet mel na mooy koo xam ne xelam du jàpp lu dul lenn maa ngi ñëw nag ci li ma leen waxoon ci xel daal ne laa ci xam moom de xelam du jàpp lu dul man dafa kennal sëriñ bi fu jafe mooy kennal ko ci xel sëriñ bi mën nga ko xel kenn ci sa xol sax te sa xel du ko kennal Cheikh Ibrahima dafa fexe ba dama bëgg ngeen déglu li may wax Cheikh Ibrahima dafa fexe ba xelam ak xolam ak jëfam ak jiiteem ak yéeneem musta génn Sëriñ Tuubaa ba noppi mu jàngal nu ñu concret li tubaab di wax concret Cheikh lu ñu teg baaraam ak lu ñu teg bët la yii gaa ngi wax léeg nga dégg ku naan dama lay wan yàlla dama lay dugal fii jàpp naa ay jinne njooma yi du ma seen moroom ak ay wax la nit ñi danga leen di teg yoon woo xamante ni buñ fa jaaree jariñu tey ak ëllëg te wax naa leen ba tey ne Cheikh Ibrahima nee na waar nit yomb na waaye def dara ci nit yomb daal ñu ko mën comme neex nag nga waaraate gis nga waaraate bi ni mu baree léegi waaraate moom dafa yaatu waaye nag def dara ci nit ñi ko mën bëri te Cheikh Ibra moo ñu misaal ci nga xam ne boo fa sukkee ak yoon mi nga xam ne boo fa awee ñu def dara ci wax naa leen ci ay waxtaan yu bari la répétition et pédagogie ne Cheikh Ibra nee na lii ma woote kuñ ci woo nga wuyu ñu laaj la nga joxe ñu liggéey loolu nga liggéey ñu tere la nga bàyyi tàbbi nga ci baax te baax bon nekkul ca wàlla te baax rek la ñu ñëw te Cheikh nee ne lii ma wane ku ci tàbbi tàbbi nga ci baax xam naa nag fu ne ñu ngi koy ak baax fu ne ñu ngi koy jeex ak baax ba naafeq yi sax loolu danañ ci waxtaan ci kanam ñu ngi ñu ngi maanaam nifaax naafeq mu ëpp ci diine léegi diine xam nga lu tax sëñ Muntaxa wax na te Cheikh Ibra lim lay sóob da lay tàggaleeg naa wax naa ci waxtaan yu bari ne Cheikh Ibra nee na sama yoon wi naa fekk munu ko naa fekk mën nay kàbbar di julli ba bërsëg te alxuraan na ko wax naa mën naa woor weeru koor naa day dem màkk waaye naa fekk bu dara desul lu muy jëf bu dara desul lu may joxe sa bakkan wéy ci ndigal bàyyi tere naafeq bokkatu te Cheikh Ibra noonu na mag Sëñ Bàmba naafeq yi lañuy ñuy génn si lislaam ndax lislaam daan ñuul ko borom tool bi séen ko defe ne tool bi lépp baax na ndekk ak jëmb rek a ci bari Cheikh Ibra ko wax ndekete nee na jëmb kese la Sëñ Bàmba ñëw nag di génn si jëmb bi ngir dugub kese des neen mu woote yoon woo xam ne naafeq ko ku ci dugg rek génn nga ci naafeq moo tax le concret défie la philosophie loolu laa wax sànq Cheikh Ibra lim ñu àndil yii tubaab yi wax ak yii ñu ñuy àndil ak li mu àndi moo défier lépp ndax loo mën a wax fekk àndi woo lu ñu teg baaraam teg ko bët wax goo lu ñu xam te loolu lépp yoon bi mu santaane moom moo koy maye moo tax ma ne li ñuy wax les chemins de la connaissance les chemins de la connaissance yoon yi nga xam ne ci li ñuy xam ne dëgg dëgg xam-xam passe par ses actes et ses paroles waxi Cheikh Ibra ak ay jëfam yoon yi ñuy xamee xam-xam dëgg bu nit mën a jariñoo ci ay xam ay waxam ak ci xam-xamam la jaar lay jaar moo tax nañ ci dellu situation boo gis keroog dégg naa ko doon wax jamono ji ni mu demee léegi jaaxal na nu ma ne ko léegi lu mu leen jaaxale Cheikh Ibrahima ba mu fii ne loo war a xew ci yoonu murid ba bés pénc wax na wax bu boobaa nu ñu koy lijjante nit ñi nangu ñu dégg loolu te lu ñu gis ne jaaxle na am na bande bu ma defoon ndar di wax ne Cheikh Ibrahima noonu na mag sëñ Bamba daañu ma a am lu ñu naqari ci yoon bi loolu ñu bari dégg nañu te bu boobaa mbat ma yéen koy teg ñu ne ko luy mbat ma mu ne doomi kilifa bu jàngul tarbiyewu maanaam yaruñu ko jàngul bàyyam faatu mbooloo ma teg di topp ko Cheikh Ibrahima nee na kooku xamul fu mu jëm bay xam fu mu jëmale kenn te jàng ak yar rek a fi ne macha allah xoolal suñu kilifa leen xam ne jàngal nañ leen yar nañ te ñaar yooyu fu mu jógee rek ak cër ñu te ak cër fu mu amul ab taalibe dafa am ndax Cheikh Abdou daa ñëwoon ci daaray Serigne Saliou te danaa koy faral di wax ne ñiy liggéeyal Serigne Saliou yéen de liy dal ko amul tawféex dalu leen daal xam ngeen luy dal ko amul tawféex ñu ne ko dee Mbàkke mu ne di wut dara di ko fu mu amul te Cheikh Ibrahima daf ñoo won fan ngay wute ak noo koy wute ak ci koo koy wut ak boo ko wutee noo koy téye ba mën koo def ci keneen moo tax xam-xam bi nga amal njëriñ ñun nit ku ñuul mën ñoo defar tey ak ëllëg lañ ko delloo ci waxi Cheikh Ibra bàyyi Cheikh waxoon na ma ne ba mu fiy nekk la ko waxoon de waaye xam nga nitu yàlla démb ak tey ëllëg ñoo yem ci moom bàyyi Cheikh Ndiama ko nettali man moo ma ko nettali man lu ma dégg ci moom la mu maa dégg Cheikh Ibra sànqal si larax na ndomb yi xuur na ñu doon liggéey yàlla jeex nañu gone yeeg jigéen ñee fi des di xëccoo alal liggéey yàlla la wax de muy wax joo xam ne bu doon Cheikh Ibra dafa nekk ci weneen xeet gis nga kàddu boobu moom la ñuy def avant-garde réew mi yëpp dañ koy jël di ko doxee di ko xalaat borom xalaat yi di ci wax borom xam-xam yi di ci wax sànqal su larax moom kenn mënatu koo laal. yàlla Abdoulaye Diagne bi nekkoon ci daara ji xam na li moom kenn mënutu ko fonde kenn mënutu cee def dara sa xal su dem ba am ay doom yàq ñu denc ko lu yàq Cheikh Ibrahima ne lislaam noonu la mel jamono yooyu mu ne sànqal si la wax na ndomb yu xuur na luy ndomb yu xuur na nee na mboolem ndomb yu góor yàlla yi ñu daan takk mu ngi witti kenn takkatu ko ba mu ngi xuur koy duwe ndax góor yàlla bëreetul daal di ne ña doon liggéeyal yàlla jeex nañu xam nga ñi nekk ci lislaam bi ci yëngu waxul ne jeex nañu liggéeyal yàlla la wax ñi liggéeyal yàlla nag ci jaam ñi nañ xam ne jaamu yàlla moom ñëpp a koy def di ko defee ni ñu ko mën waaye am na ñoo xam ne yàlla la ñuy liggéeyal te Cheikh Ibrahima ñooñu la waxal mu ne ña liggéey yàlla jeex nañu waxin la nag dalaa bëgg a wax ne lu jamono gën a dox ñiy liggéeyal yàlla gën a néew daan na jigéen ñeeg gone yee fi des di xëccoo alal léegi ku mën a dindi wax loolu kan moo ko mën a dindi ci kaw suuf kan moo mën a dem ci benn téere ba gis wax du ko gën a dëggu ci jamono amul ndomba yi ñu néew ko takk fi mu nekk nii ñu néew a takk ndomba yi góor yàlla sëñ Muntaxa waxi Cheikh Ibrahima jooju sëñ Muntaxa wax na yàlla na fi yàgg. nee na l'islam ba mu sosoo ba tey lu xew lu xew ci l'islam bind nañ waaye boobaat léegi ñun lii jariñu ci l'islam lu am junni at ak ñeenti téeméer sëñ Muntaxa ne ñu néew ci jariñu kon kenn ku nekk jotul nga gën a tiit ci sa te xool ndax yow bokk nga ci ñi ci jariñu wala déet te kat yi ñu takk nii montre boo ci gis borom di ko xool di ko xoolaat dafa am heure waaye montre boo amul heure bu yàgg xam nga ni ñu na la rek kon nit ki la ko arrangé mooy li baax ci moom mooy na am heure waxi waxi waxin la loo xam ne dama ko wax ngir mu heure nit ñi xam montre moom bu amul heure amul solo murit moom bu amul ak taalibe moom montre bu amul heure yow dégg nga li ma wax retard rek ak avance di def lu la santul ak di wax lu sa yoon nekkul ak di di di def lu neexul sëriñ murit montre la sëriñ montre la na am heure ba saa boo xoolee xam ne am am nga heure ñu dugg nag ci jamono joo xam ne médiocrité li tax ma koy wax fii ñu ci bëree bëri am na wala fi xóot yoo xam ne boo ko waxee ñu ne lu muy wax nii médiocrité médiocrité mooy bàyyi sa ba la taxoon suñu borom sàkk la bind la nga wàcc ko fële nekk ci loo xam ne du la jëriñ tey du la jëriñ ëllëg yàlla jëriñ mooy sàggane sa bopp mooy caaxaane sa bopp mooy fowe sa bopp loolu mooy dem ba. médiocrité doon gagne-pain ci jamono ji te xool Serigne Touba fi mu yóbbu nit ñi fi mu yóbbuwoon doomu aadama yi xool Cheikh Ibra fi mu yóbbu ak taalibe bi ñun ñu wàcc suñu bopp ba médiocre lool laqad xalaqnal insaana fi ahsani taqwiim summa radadnaahu asfala saafiliin loolu day am day am jamono bu ne léeg-léeg nga gis ku ñëw yéege aw nitam ba ñu kal ñu dox ab biir nit ñi wàcc seen bopp ba gën a suuf bu ko defee médiocrité doon gañtee maanaam taxawaalu ak taasu ak fecc ak fo ak wax lu dul dëgg boo ci demee ba man cee am loo xam ne ki li ci dëgg du ko am gars yi dañ seetal suñu bopp yéen a ngi dégg sëñ am la yaa ngi dégg li ma wax waaw ndax dafa am ku baax ku ne suñu bëggee lépp dox nañ fexe ba pour jubati di ñeeku jub waaye société boo xam ne àgg nañ ci ku jubati ku jub da lay ñeek te alxuraan ne laa rayba fiihi hudan lil muttaqin njub rek la alxuraan santaan léegi naa daa am kuñ doon jàngaloo mënta jàng amul xel ñu ànd ko ci service yooyu bu ne ko kii nag moom xel mi neex na waaye kii de xel mi neexul waaye ak jub service yooyu bu ne kon bàyyi leen ko mu dellu ci boppam jub rek lañ lañ doon li ñuy jàngat li ñuy def yëpp njub képp lañ bëgg ci nit te loolu rek la sëriñ bi doon def ci nit ñi fekk nit xam nga dañuy defe ne sunna maa ngi ñëw dañu defe ni sunna xanaa xamuloo ne limaamu Shaafi yi nee na trois cent soixante sunna ñoo te nee na benn bii rek charia ah, ah, nee na charia yi ci trois cent soixante moo am nee na benn bii rek gars yi maîtriser wu nee kon ku maîtriser wu ñetti téeméer yi ak juróom-benn fukk na nga def ndànk ci loo gis weddi ko wala loo gis ne nii wala nga ne li ma nekk rek te sëñ Fallou Mbacke mu baax mi nee na boo baaxee fu nit baaxee daf lay neex day mel ni fi yow la baaxee nee boo baaxulee fu nit baaxee fu dul ci yow du la hmm? xam nga baax genn la nee boo baaxee fu nit baaxee rek neex na la boo ko defee. ñu jël mensonge fen def ko muy label le mensonge est label actuellement nga xam ne fen ci lépp di wundeebu léegi jëf yeeg wax yeeg dox yi yeeg lépp ci fen la tënku te sëriñ Cheikh Fall Baye Mbour ne woon na ma ku dul fen mat na sangu ku yàlla bi daan koo gis du fen rek booy boo def ko sa sant bu yeboo nga dàq ko jaamu yàlla bu yeboo nga dàq ko joxe loo ko dàq dàq te du fen moo la gën fu ne da nga gis koy fen ba xam lu dul jeex te ak taalibe rek mooy dëgg bu ko defee fokk yu am li ñuy wax parade am réplique mooy lan mooy ak taalibe ci Cheikh Ibrahima jàngale woon ñu préparé suñu bopp waajaat adduna bu la dara di xeex lu ne di la xeex yow tamit da wut défense boo xamante ne bii lu jub jëm si ci yow dana fekk nga nopp waaye sëñ Maam Mor mu Cheikh Mamadou Mourtada yàlla na fi yàgg nee na ñun ku ñu gis xam na fu ñuy jaar te ñun xamuñu fu ñuy jaar kenn. bu ko defee li ñuy waxtaanee jubluwuñu ci addis. ak yéemu ak kéemtaan liñ ci jublu mooy li alxuraan wax ne alif laam ra tilka ayatul kitaabil mubiin inna anzalnaahu quraanan arabiyyan la'allakum taqiloon nahnu naqussu alayka ahsanal qasas bimaa awxaynaa ilayka haazal quraan wa in kunta min qablihi la minal gaafiliin dellu waxaat ne wa kullan naqussu alayka min anba'i rusul luñ koy doye maa nusabbitu bihi fu'aadak wa jaa'aka fi haadihi al-haqq wa maw'izatun wa zikraa lil mu'miniin suratu Huud bu ko defee lii moo tax ñuy waxtaane sëriñ maa nusabbitu bihi fu'aadak boo gisee ñuy waxtaanee Cheikh Ibrahima suñu gëm la ñu bëgg a defaraat te ku bëgg sa gëm réparé wu del seet sa gëm Cheikh Ibrahima nga di ci dox ba ñu topp gëm léegi ji nga xam ne du jëme nit fenn ba noppi waxtaan yi dañuy bëgg dëgg di ca bàyyeekoo di tàbbi ci ñun lépp luy fen ak i caaxaan ñun ba noppi muy ak laa biire ñeel jullit yépp loolu moo tax yoonu Cheikh Ibrahima nag yoonu jom la mais ma dig lu baax ku ñàkk jom bokkul ndax li Cheikh Ibrahima def ak waa këram yëpp ku amul jom mënoo ko te man de damaa gis ne Cheikh Ibrahima ak ñi mu defar ak i ak waa kenn ku ci ñàkk jom amul te léeg nga gis. boo xam ne ak ñàkk jom ci lay dund ba faw tuddee ko ak bàyyi wala hmm? di dund ci ñàkk jom tuddee ko ak xam ne fasoo yéenee tekki dara fasoo yéenee doon dara fasoo yéenee doon dara ci dara ci lu baax ba noppi ne bàyyi la xam nga xam nga amoon na fi ay jamono bari di wax nga xam ne boo waxee lu juunu ci mbooloo da gis benn waaye bu ponkal mu jóg fële ne la eh, saa waay dafa naa bàyyi faal rek nga ne ko waaw li gars yi daan def bu njëkk di désacraliser mouridisme ba nga xam ne da nga daan gis ay gars yu dëkk Touba ci yoon bi wax sa wax ba noppi ñu ne li nga wax nag nga ne ay waxi murid la rek te yow murid bi yaa fekk yow déshonoré nga sa bopp désacraliser sa bopp dégrader sa bopp ci wax jooju ci ñoo xam ne ñi ko sos ñëpp xamuñu fen xamuñu tur dëgg moo tax nañ góorgóorlu ci xam lan mooy Baay Faal jommi taxawal dara ba ak jommi li nga wax nga nekk ci te doo ci jub mu loolu mooy Cheikh Ibrahima Wade xam naa ne nag saa booy wax loo xamante ne lii lépp dëgg la moom am na ñoo xam ne bu ñu sañoon nga wax loo xam ne lii maanaam fenn fu ne waaye dafay dóor boppam fenn fu ne waaye di di lay lay yi tëb te fekk na doomu aadama temps dafa sàkkale temps bi ngeen jox suñu Cheikh Khadim te jox ko Cheikh Ibra jox ko Serigne Touba ñoom ñu toog ñu di déglu temps bi dafa sacré waruñu ko fowe ndax minute boo dund lañ la koy laaj ëllëg kon jom jom bi taxawal la nekk ca donte doo ci wàcc mukk mooy Baay Faal ñaareelu jikkoy Baay Faal mooy lan mooy fulla fulla fulla sëñ Cheikh Fall Baye bi bañ ko laajee fulla dana mooy def li nga war a def lépp te doo tooñ kenn lu jafee ngoog lu jafee ngoog nag gars yi gars yi defe nañ ne am Baay Faal mooy koo xamante ne kii du fonk autorité du fonk ndeyam du fonk baayam du fonk kenn lu ko neex wax lu ko neex def nan góorgóorlu ñun ñëpp génn ci loolu Cheikh Ibra xamul loolu doomam yi xamuñu loolu waaw nañ ci góorgóorlu ñun ñëpp man nag nekkuma ci bi digle ak tere lii waxtaan la ñu war a digle ak tere ñoom bu ci kanamee danañu digle tere waaye yeete ak fàttalee kan mooy Cheikh Ibra dafa baax yoonu Cheikh Ibra yi tamit xam nga jom laa jëkk a wax teg ci ful yoonu ngor la ndax ku garewul loo ci bokk nangus ngor te dis jaam nangu jaam te di ko kon pire mooy doon bàyyi ba jaayante lépp gisuloo la xew Tuubaa jamono yi la ci nga xamee ne Cheikh Ibra bu yow noon xëyaat ne nit ñi day danañ mu bett ak waa këram ba Sëriñ Muntaxa santaane ne nañ Tuubaa salte ba nañ ko dindi te fottal ñi jiw yi canalisation bi gis nga ña na ma yàlla baal nag su ma ko waxee ngeen ni si jago kat léeg-léeg day tàng ñu nga ña ña nga xam ne bu ñu dugg ca war a ya dañuy koccet koccet yi mel ni bëgguñu dara laal leen te lu ne ci war a ji ñoo ko fa def ñooñu ñoo dem taxaw fee boot seen i loxo di xool Baay Faal ñu jël seen i loxo di ko génne xanaa xam loo ne fi mu nekk ni éboueur ñu ñoo éboueur maanaam ñuy wër di forbal bu ñu amul woon ci dëkk dëkk yëpp benn dëkk bu nit ñi mën dëkk amul te fi nekk ni kat kaw di fenn la ñu a fonk doomi Cheikh Ibrahima ak sëtam yu mag yi fi ne yàlla fi yàgg gisuñu ci kenn kuy jaaxal ñi ko fi nekkal laa di ko tàmbali si ñam di xarit Fall sëñ Ngunda sëñ Cheikh Mbawa Ngunda Blay mi fi jóge bu yàgg ñooñu ñëpp amul ci kenn koo xam ne nit mës na leen a gis ñu caaxaan amul kon dëgg rek mooy yoonu Cheikh nañ ci góorgóorlu lu baax ndax dëgg mooy maye lu sax waaw dëgg mooy may nit lu sax lu mu mën a jariñoo njabootam ñëw di ko jariñoo ba bis denc yàlla lu sax ci dëgg ci barki Cheikh xam ak xam ne Baye Fall boo gis li xam ak taalibeem tax na mënoo ko mënoo mënoo koo xam ni mu xàmmee luy dëgg ak lu dul dëgg Baay Faal dëgg day xàmmee dëgg ak lu dul dëgg saa boo demee ba bëgg koo nax ba defee ne dafa xamul dara moo tax mu doonul taalibe boo dajee moom ci ngay xam ne ni njaay ngay wax nit dëgg nit dul sax mën naa njaay wala njaay ni ci tëru loolu dafa am nit njaay hmm? Baye Fall day doon koo xam ne kii day tabe ci lu mu jublu tab tabe ci lu mu jublu li ñuy wax naan généreux dans l'effort booy def lu baax da ci da nga ci doo ci dese dara doo doo doo doo doo dox doxinu naa fekk Baye buy jëf dara day jëf ba jeex takk jëf jeexal bu dese dara ba noppi nag woy ci li nekk jël bis pénc Bamba dana lekk lislaam ba mu jeex loolu da na ma lekk Bamba ba mu jeex bis pénc soo ko taxaw xam ngeen loolu hmm? na balaa bis pénc Bamba dana lekk lislaam ba mu na lekk sëñ ba mu jeex bis biñ soo ko taxaw islam mooy sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa ba mu ñëwee dafa lekk lislaam ba mu jeex sunna ak aqiqa mu naan ko ba mu jeex def ci alxuraan bu kenn defu def ci islam lu benn l'islam yëpp ñu gis ci moom mu bind ko ñëpp di ko gis xam ne l'islam bépp ci moom la tàmbalee yem ci ak nga nekk fi mu toll nii képp koo xamante ni kii sa l'islam doxe woo ci ni sëriñ bi doon ni sëriñ bi tëralee l'islam sa l'islam mën naa bañ a rafet xoolal jàkk dama leen rek. jàkk ju nit di julli ay at jàkk ji yàqu ngay yàlla te sa kër yow ak kër ñi ciy julli ay immeuble loolu de du nit sëñ Tuuba sëñ Moodu Xabaan nii rek ci boppam macha allah tabax na jumaa joo ne ci jëmmi boppam moom nii rek bañ koy inauguré dégg ngeen li si yokk sa daaw kon jëfal lislaam mooy dëgg bañ bu nit ñi jëfee ba noppi yow nga ñëw yow allah ba rek asalaamaaleykum defe ne moo tax mu ne lislaam bépp ci sëñ Bamba lay mujj sëñ Bamba mujj ci man soo ko taxaw xanaa xam nga Cheikh Ibra waxoon na ne lépp dana doon benn ma fekki kenn lépp dana doon benn te du ko fekki li ko xam de xam nga luy lépp dana doon benn foo nekk boo doxul doxul ñu bàyyi faa soof ñëpp sëriñ bu la ëpp ñu ñu muruwul bàyyi faa sëriñ boobu la gën a sonn fi mu ne waaw taalibe boo am mu dox doxi bu Cheikh Ibrahima nga sant yàlla damaa nekk ci Bologne sëñ Alaaji Bousso Tamba fekk ma mooy Fall bàyyi sëñ Fallu Bousso ma ñëw nuyu ko mu ne ma sama baay moom soxna Awa Bousso bokk lépp moo tax Cheikh Ibrahima ku yóbbu ku yóbbu gëstu ku dëgg dëgg dëgg xam ne fa xam-xam ne moo gën caaxaan ni nee sama baay Sëñ Tuubaa ko ne na nga wóolante Ibra Fall xamoon nga ni seen kër yi àjjana ñoo jàkkaarloo mu ne ko ah, gis fii rek mu ne ko seen kër yi day na moom mën ma saa baay bi muy faatu xam nga lu bind daa daal di bind kuunu ka Cheikh Ibrahima Fall loolu la mujj bind instant bàyyi loolu la mujj bind leen sama njaboot mel leen ni Cheikh Ibrahima même mel rek ñu denc ko mu jàkkaarloo xamu Cheikh Ibrahima lañ soo ko xam li sëriñ bi doon wax ne ko yaa ngi yor Fall yéen bokk te Cheikh Ibrahima mbirum ak sëriñ bi xóot na lool. nañ ma fàttali rek waxtu bi xam naa kii kii ñoom kii la naa yëfi moom ñëpp ko bokk dafa war a yaatu waaw boo ko te sëriñ bi wane na ne lu waay bëgg rek nett li naa leen ko keroog sëriñ Moustapha Xasida ma ko wax am naar nee na sëriñ bi xanaa Thierno Biré bu baax mii de sa taalibe la sëriñ bi ne ko sama taalibe gay mu ne ko Cheikh Anta nag mu ne ko sama taalibe ndekete naar bi jëmul foofu waaye xamul ki muy wax mu lim ko gars yi baax yépp ban daj sëñ bi ne ko ñoom ñu sooy taalibe la mu ne ko yu rafet nag Moussa Xasida ma ko wax de ne sëñ bi jox nañ ko baaraam bi ne ko mën nga ndox mu ko déedéet mu ne ko kon yemal ko te yàgg naa leen wax ne ndox mool sax la gën a gaaw li wan mool yi li muy wan ñi ko yëpp <laughs> Cheikh bi ku mënul ndox na nga téye ci moom te gars yi mënuñu dara ba noppi lu ñu gis naan alxuraan waxul lii li alxuraan wax yëpp xamuñu wax naa leen keroog ne leen Cheikh Ibrahima nee na kenn du moroomu kenn daal ko wax ak moroom nit na ko du ma sa moroom te kat léegi ku wax loolu ngay wax du ma sa moroom Cheikh Ibrahima ne moroom amul moroomante amul kenn du moroom kenn. te kat ñun nag fi ne rawante ci moroom ak ñàkk moromante rek lañ bëgg Cheikh Ibrahima ne kenn du moroomu kenn kenn ku ne sa sa morom xam nga lu tax boo wajadu maa amiloo xaadiran kenn ku nekk loo mën a wax ak loo mën a wane loo mën a def bés pénc da ngay fekk sa jëf ñu ne la yaa kon nag na ngeen góorgóorlu bu baax ñun ñëpp ci jamono ji ñu toll le Cheikh Ibra jàngale woon nit ñaa ngi koy bëgg a bàyyi li ëpp ci nit ñi waxuma waa kër léegi bes bu gi génn ak doxalin wu bees yu génn loolu dañu war a waxtaani Cheikh Ibra na nit ñi xam ne loolu du doxalin lu nu dal nag looloo na ko teg nañ góorgóorlu bu baax a baax murit du ay pexe murit pas-pas la ak yitte du kawe ak wiital yàlla ak jaamu ko ak ñàkk caaxaane sa bopp loolu mooy murit de murit njëkk yi foofu lañ nekkoon kon nag ñun ñëpp nañu góorgóorlu ci loolu te am pas-pasu taxaw ci loolu te xam ne suñu kilifa yi buñ leen xoolee xam ne kat ñun mu ñuy teg ci yoon bu ko defee nag ñu fàttaliwaat rek li ëpp ci doxalin li Cheikh Ibra doon doxal te sëñ Bachir wax ko nee na wa min muraqabati mawlaahu xawfan wa ijlaalan walam yalbas an takaasarat muridihi wa atbaa'ihi kasratan faa'ixatan sëñ Basiiru nee na si ay wër ku ragal yàlla la woon dama koy faral di wax toujours nag nit ñi defe ne waxtaan la Baay Faal yi dañoo ragaloon yàlla nee leen Baay Mamour Kholle mu Sëriñ Asan sëñ bi xam na daf ma daan wax bu déggee ñu naan mooy yàlla daf ma daan wax naa ma waaw sëñ Njaga ma ko waaw na ne ma ndax nit sañ naa fekk ku mu takkul di sëy moom mu ne ma loolu am na te sëñ Assane na ko yar moo ko defar lépp te gars yi defe lu foo jaar rek fa ragal yàlla ci Baay Faal la boo ko def mu ngi nii xaw fan ragal yàlla ak di màggal yàlla foo toll sëñ Basiiru nee ci Cheikh Ibrahima la dëppee nee na moo taxit murit yi bari taalibe yi ñu ci bari ñëpp topp kachir tam fàyyi xatam nee na dafa mujjoon bari mbooloo ba dafa yéemoon doomu aadama waaye nag mbooloo ma la ñuy bari bari wax xaama bi tahzibi ak kama xiyaame te lu leen baax la mu doon liggéey sëñ Basiru ko nee na Cheikh Ibrahima lu ko mbooloo mi topp topp li ñuy bari bari xaama bi tahzibihim atamaxiyaam ñu ko topp ñëpp defar na leen yar seeni xel yar seeni xol yar seeni jëmm maral leen ak seen neen taxawaay bu mag la taxaw ci képp ku ko mos a dara man ko war raadahum bil amal nee na Cheikh Ibra sëñ Bachirou nee na Cheikh Ibra ku ku mu tarbiya rek ci jëf la la wulli daf la tokki wulli la ci jëf ba xamoon bu jëf wal aada ak i tegg lii la bind de na leer nañu nag fastaxaamu aleyha waaye nee na nag li ko gën a neex ci ñi déglu leen baax li may wax nee li gën a neex ci ci Cheikh Ibrahima aw nitam nee na yekk boobu ku mu commencé yekk ci yow boole na la pour la ju toll ni bi nga taxaw ci loolu ba ba doo tàggoog moom ba nga wuy ji maanaam maanaam defar dana la booleeg loo xam ne doo doo tàggoog defar bi ba ba nga wuy dara dootu la mën a yàqal parce que xamoo alayha wa kaana min tajassusihi li xaali te تبينت الحكومة الدارية ما كان لبسه عليه الوشاة nee na bokk na ci li Cheikh Ibra politique la politicien bu mag la waxul politicien yi de politique politicien nee na tër dara xam foo koy jaaree ba am ci li nga bëgg ba ñi nga ànd ñëpp am ci ñu bëgg neen kenn suutu ko ci nee loolu la doon wax ci ñorom fexe na ba di wax ak tubaab ba tubaab yi mujj gëm ne Cheikh Ibrahima li mu leen doon wax te moo gën a xam ñëpp ne sëriñ bi ak tubaab mënu la ko dara te li mu bëgg dana ko am waaye nag doxinu àddunaam da ko doon dox ba mu mag bokkut ak taalibe yi nga xam ne lu jóg rek ñu ne yan lañ koy njaay ah sëriñ bi attan na doo jëf dara. doo jéem dara doo am pexe doo lijjanti dañu wax ne ne sëñ gàttal na sama benn waay bu sax xorom dañoo ahmadu daf ma ne waa sëñ njaga di gaa ñuy def lu yëngu ñu ne wékk naa ko njaag moom moom loo ci xam ma ko ñoom ñoo defe nañ ko ko de waaye njaag fa mu balaa nga fa yàgg ko wékk dara <laughs> bari na loo defe ne moom nga ko wékk te danga ko wékkoo neexee ci kaw suñu tubaab ci sa bopp nga ko teg ndax ne mu ne mu ne mu ne daana wax ak tubaab yi ba tubaab yi dem ba Cheikh bi da leen a convaincre ci àdduna nii ci saa nee na nee na ci waxi Cheikh Ibra ak i pexem fa amino charrahu ci la tubaab yi gëmee ne Sëriñ Tuubaa yorul benn lor bu jëm sa wa alimu annahu laa yuridu arada dunia fa saaru yasxawna lahu isa lafatahum ila bashi fi amrihi xat mi nga xam ne moom Serigne Touba ko yar maamam Serigne Touba ko yar sëñ Mor Talla Fall te doomi Cheikh Ibrahima la sëriñ bi yaral ko bopp kon defe naa ne taxawaay bi mu taxaw sëñ Mor Talla bokkoon na ci sëriñ si nga xam te ne ñoom lañ daan jëkk gis ñu takk seen digg di mawlu sëñ Mor Talla sëñ Cheikh Ndiaye Mbengue nee na ma maag sëñ Amdi Xadim moom mu yàgg waaye nee na sëñ Mortalla du sëriñ bu lay sant dara dem toog ca kër ga nee bu ngeen masam ànd ci tool bi suñ cee njaay mbay nga ma ko wax te moo ko yar te ko wér di dama nga laaj ko nee bu ñu masam ne ci tool bi sëñ Mortalla maanaam booy bay mu ngi taxaw sa kanam di tari alxuraan ak di jàng xasida ak di la wax noo war a bay ak noo war a def ci naaj bi lay yendoog yow ba ngoon dajale ndongo yi di yëkkati ndongo yi aw ba suuf seen mu soog fa loolu la suñu Mortalla Fall daal def muy jëmm yoo xamante ne ji am na ci nit yi Sëriñ Tuubaa yoo xam ne seere nañ ko seere yoo xam ne doy na kéemaan suñ Saliou ambassadeur mu sëñ Mour Moustapha daan na joxe armée yooyu yu Tuubaa yi daan na xam naa ne comme mel ni sëñ Mortalla day yombul fii de daal ni kooku de li na kooku moom mooy jur way kon su nekkee ci lii lu mu nekk la yàlla na ko barkeb sëñ Mortalla boobu dab ndax sëñ Mortalla sëriñ bi daana ko jàngaloo xasida jàngaloo na ko jaari batul baraka mu koy jàng yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko déglu loolu dégg ngeen sëriñ bi ne ko bi ngay jàng ba tey sallallahu alayhi wa sallam mi ngi toog di la dégg yow sëñ Mortalla nee wax li nga bëgg mu defal la ko waaye man tànnal naa la ak taal nee ko ak taal te cër yëpp ak taal bee ci gën mag ñi dañ yëpp ci taal bee ci gën <laughs> kon yàlla nañ def ci barkeem baax ñooñu ñoo ngi leen di leen sant. yàlla na ko at yu bëri te mu nangu lépp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf sëñ bi fa tabaarakallaahu xol yëpp sant nañu sëñ Ndiaye yàlla yàlla fay la yàlla yàlla suturaal la yàlla yàlla defal ilaha illallah.